ñu ngi leen di gërëm ci seen taxawaay waaye na leen wax ne sas ngeen ñu sas ngeen ñu te incha allah lépp loo xamante ne wax ngeen ko ñun également engagement yi ñu jël lépp dinañu ko respecté te di ngeen fier ci équipe bi nga xamante ne di ngeen ko fal le 23 janvier Peuple de Grand Yoff, nous sommes à la croisée des chemins. Grand Yoff bu bees la ñu woote ñoo ngi félicité monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr bi nga xam ne moo nekk mooy nekk suñu prochain maire de Dakar fas yéene jàppale le peuple de Grand Yoff monsieur le ministre le peuple de Grand Yoff souffre en silence ça fait cinq ans que ce peuple souffre donc jot na nag ñu gestu population wu Grand Yoff donc monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr dañ lay wax bés boo jëlee mairie Dakar nag ñu jagleel lu am solo ñu defar suñu infrastructure parce que commune bi daanaka bu yi nga xamante ne ba ñu ko yoree ak léegi amul benn investissement structurel bi fi nekk à part le pont de l'émergence bi fi président Macky Sall def amul beneen investissement bu fi am loolu muy wane ne que muy ville de Dakar que muy mairie Grand Yoff amul benn benn ambition bu ñu am pour commune Grand Yoff donc nag jot na ñu am un maire de Grand Yoff et un maire de Dakar prêt à accompagner les populations de Grand Yoff te mën nañ ci am yaakaar parce que monsieur le ministre abla Diouf Sarr fii la dëkk également donc fii la dëkk au niveau la commune de Grand Yoff tey li nga xam ne moom la ñu bëgg a wax nga xam ne daanaka suñu adversaire yi tey loolu mooy raisonner seen bopp yi ñett moo la ñett moo yooyu laa bëgg ngeen xam ne tey Grand Yoff nous sommes prêts pare nañu pare nañu pour changement pare nañu pour ànd ak yéen ci li nga xam ne moom lañu ñu bëgg a tabaxee la commune de Grand Yoff donc nag dañu bëgg le 23 janvier suñu adversaires yi commencé nañu paniquer parce que bu ñu demee ba le maire Abdoul le maire Khalifa Sall suñu maam boobu ñëw fii ci Grand Yoff ne man dama wax ne damay raser quartier Arafat xam nga ne kooku amatul benn argument comme nag def na jamonoom na dem tàllal pliyaanam fële ca immeuble Kébé toog naan ataayaam te bàyyi ñu ñu defar Grand Yoff loolu lañ koy wax bëgguñu ko dépasser donc nag na yem place donc peuple de Grand Yoff ñun pare nañu donc nag dañu bëgg le 23 janvier ngeen teel a dem ngeen teel a dem ci bureau de vote yi teel a dem ci bureau de vote yi parce que opposition bi xam nañu ne perte nañu ba pare opposition boo xam ne. teg nañu ay candidat yoo xam ne malheureusement ci ñoom candidat yooyu mënuñu muy Grand Yoff ñu teg Madiop Diop bi nga xam ne certificat sax amu ko kooku nan la mën a gérer Grand Yoff mais quand même il faut sérieux nga demaat fële Dakar ñu teg Barthélémy Diaz koo xam ne amoo sa baccalauréat nan nga mën a gérer Dakar dañu waxante dëgg Sénégal ñun on fait confiance à la population te xam nañu ne ils feront le meilleur choix parce que dañu war a tabax réew mi gab bu ñu am ak étranger bi dañ dafa bari donc il faut que ñu teg ay nit ñu sérieux pare pour changer réew mi donc nañu teg Cheikh Bakhoum et l'équipe de Benno Bokk Yakaar à la tête de la commune de Grand Yoff teg Abdoulaye Diouf Sarr avec l'équipe de Benno Bokk Yakaar à la tête de la de la commune de la ville de Dakar ñu ànd ak le président Macky Sall le grand bâtisseur ñu tabax réew mi loolu mooy li nga xamante ne moom la ñuy wax population bi te gëm nañu ne loolu la ñuy def saaga ak wax lu ñaaw mënul tax nga diriger nit ñi nañ wax ne wax ne dëgg mën nañ leen def peut-être député mais mënuñu gérer municipalité wala wax wala président de la république wala mairie mairie Dakar buñ bëggee mën nañ leen jox place ci assemblée nationale su boobaa foofu mën nañ di saaga di wax leen neex mais pour gérer commune wala gérer département danga nga war a am ay compétences defar dëkk bi te loolu la ñu soxla donc nag waa Grand Yoff ñu ngi leen di woowaat. Grand Yoff gëm nañu ne pare ngeen pour le changement est-ce que vous êtes prêts pour le changement donc votez massivement pour la coalition Benno Bokk Yaakaar ñu ngi leen di gërëm mu baax di leen sant